الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابعيهم وعنا معهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين bokki jàmm تف تف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ak ñi and ak ñun ñëpp ci site internet radio yi ak yëpp rek di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci kër gi ci kilifa gi ak ñi koy jàppale ñëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna yëpp di jiital ci kàddu gi di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ni ñu ko alquran digle sant ñu bu lu mel ni nga xam ne moom la ñuy tuddee alwafaatu te mooy dee di ko olof di wax alxuraan tuddee ko musiba ay ak yi mel noonu yëpp di ñaan yàlla yit yàlla yool ñu ci suñu musiba yi te wutalal ñu lu gën témoignage yi xam naa ne mën naa gudd lool waaye mën naa gàtt lool ndax kii nga xam ne ci lañ bëgg a wax si boo ci doon wax ci douze mois di ci wax vingt quatre heures sur vingt quatre sept jours sur sept du tax li nga bëgg wax nga man koo wax kon dafa mel ni rek dañuy tënk wax naa ci benn jumtuwaayu jokkoo yi démb ne bu ñu yemoon ci rek ne doomu Cheikh Ibrahim la doy na témoignage ndax Cheikh Ibrahim bi mu jëlee njabootam di leen yóbbu bitim réew ngir ñu dem rek Euh, wane ne nit ñi dañoo war laxasu dem jàngi waaye ku ne xam na ne ron baaram mi ay ponkal génne nañu fi te ci suuf lañ daan toog wala ci ay der sëriñ bi méngoo seen mbir te mujj nañ nekk kàngaam jommal àdduna bi te ku ci tudd xalifa bu ñaareel te mooy taawam Cheikh El Hadj Abdullah ibnu Cheikh Ibrahim bàyyi ma ko jàngal fii ci ron baar mi géewi xam-xam yi ci àdduna bi yëpp teew na fa. mën nañ cee tudd Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop Oustaz Job, Diop ku ne xam na ko nekkoon na chef département institut bu Kwame Nkrumah demet demet demet ñooñu ñëpp fi la njàngee waaye ma dellu si ne bi muy yebal njabootam bokkoon nañ Cheikh Mahamadul Amin mi Cheikh Mahamadul Mahi mahimi nekk xalifa bi tey ñuy jàngi ca leetar ba mu bindoon daf ca bokkoon ne sama doom yi dama leen ñaan bu ñuy ay wëliyu yàlla ci xëy bu laata ñuy wàcc ci suuf xam nga kon buñ ne yow doomu Cheikh Ibrahim nga rek <laughs> loolu rek doy na dama ne ma waxaat ku ne bàyyi moo wax ne ba muy denk doomam yi ñuy jàngi bitim réew daf ne woon ci année soixante yi soixante deux trois wala quatre daf ne woon sama doom yii kat dama leen ñaan yàlla may ma leen def leen ay wëliyu yàlla te boobu ñu ngi ci xëybu bu maanaa gëneeguñ àdduna kon mu ne khalifa bi doomu bàyyi la loolu rek doyoon na waaye nag moom mii nga xam ne mooy al mawlaaya al mawla al azim Cheikh Ahmed Tidiane sëriñ bi ci boppam te bu ma ne sëriñ bi rek ci wax ji yëpp mooy Cheikh al Islam al Hadj Ibrahima Niass dafa waxoon keroog bi sëriñ bi di xalifa bi gane aduna daf ne asalullaha an yanfaa bihi al aalama loolu Baye ñess moko bind ba fi kérok bi maulay chamadi Tidiane gané aduna daf né ma ngi ñaan yalla sama dom ji juddu tay yalla na ci yalla jëriñee aduna bi yalla na ci yalla jëriñ aduna bi yépp yalla na ci aduna bi yépp baxé as'alullah an yanfaa bihi al'alama xam nga ñaan gënta reey loolu ñaan go xamné dafa ñëw gannaaw bu sa baye waxé né ñaan na la yalla te yaangi ci xey bu yalla def la ngay waliyu yalla nga wat mu teg ci waaye ngay dem ba benn ci voyage yu sëriñ bi muy dem makka ci avion bi jëm ci soppeem ba yonentu bi alayhi salaam jëm makkatal mu mu di ne fi tariqi najlaaya maa ngi ànd ci sama yoon bi nii ma jëm ci yonent bi ak sama ñaari ahmadu wa ahmadun ahmadu mu njëkk ma mooy cheikh ahmad dam mi nga xam wa 2010 euh, wa ahmadu gam ca tegoon mooy Cheikh Ahmadu Tidiane mi wàcc liggéey ci 2020 bi waaye nag mu wax lu rëy ci ñoom ñaarit te loolu la wax it seen i mag yeleen jiitu woon ne euh, tamma fihima ma aqsidu mu ne sama ñaari doom yi ma àndal di ahmad sëriñ daam ñu gën ko xam sëriñ daam ak wa ahmadu te mooy Cheikh Ahmadu Tidiane mii mu ne tam tamma fihima ma aqsidu wax gënut koo rëy jógee ci bàyyi waaye jógee ci borom jamono jëm ci doomam waaye mu ne li ma bëggoon ci ñoom ñaari yi yëpp yàlla defal na ma ko dem mu wax naa ci benn waxtaan ne waaw dafa mel ni ñaar yi asalullah an yanfaa aalama maa ngi ñaan yàlla mu jëriñ àdduna bi ci sama doom ji loolu ñaanoon na ko mu dem ba ci ajam nga mu dellu ne sama doom ji tam ma fii ma ma axsudu li ma bëggoon ci moom yàlla defal na ma ko xam nga kon dafa mel ni Cheikh Ahmada Tidiane mii wàcc liggéey yàlla jëriñ na àdduna bi ci moom amul benn sikki sàkk ndax bàyyam moo ko ñaanoon dem ba jamono mu del mu dellu ne tàmm fii maam la axsudu li ma bëggoon ci sama ñaari ahmad yu yàlla defal na ma ko dafa mel ni ku toll ni Cheikh al Islam Hadj Ibrahima Niass di borom jamono yaakaar naa ne tey message yi rot si Medina bàyyi euh, ñii di jaale ñii ñii ñii mboolem mbootaayu lislaam yi ci àdduna commencé ci al azhar commencé ci seen ak mufti mufti bu Égypte Hamas ambassades yi nekk fii Ligue Pei, pays yëpp tey seen i bataaxal wadd si na gannaaw bi nga xam ne dinañ yebal seen ndaw waaye mu doon jëmm ju xam ne muy Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane yal na yàlla dolli leeram ne garaat yooyu yëpp ma wax na sa baay ñaan na yalla nga nekk waliyu yàlla te boobu ci juddu nga sa ñaan ne na yàlla bi ci yow dem nga ba sa baye taxaw sédel aduna yépp ne tamma fi ma ma ak li ma bëggoon ci ñom ñaar yalla defal na ma ko daf ko lém daf ko ci suuf gappare ko ci kawam nima ko waxé dem mu dem ci daara ja mengo li ñëpp daan mengo ngir sakku xam-xam sakku alquran xam ko mën alquran jang nima ko waxé légui rek laxasu ni ko ñëpp di défé ci ron mbaar mi jang ba sonu ba yalla dimbalé ko mo goreel xétu xam-xam yi ci l'islam ci luxal arabia moy littérature arabe de manière élargie wa yooyu yëpp moom mu jëlat ko teg ko takkat ndiggam ngir ligéyal bayam, té buñ ne liggéeyal rek moy ligéyal fayda tijaniya té buñ ne liggéeyal fayda tijaniya moy ligéyal tariqa tijaniya tariqa tijaniya kèn du ko ligéyal té na ko jullit waaye oustaz Borom Diop daan wax né julit bu sagan sax nek man ta nek ab kon sëriñ bi liggéeyal na lislaam loolu mënoon nañ ko détaillé waaye jamono du ko maye waaye ku ne xam na ne ci jamonoom euh, jàngi jàng ak jàngale tas na yaatu na moo xam ci biir Medina bàyyi ku ne xam na ne daaru yi daara yi gën gën gën gën gën na bari euh, maahid yi ku nekk xam na ne gën na bari euh, muy institut yi centre islamique yi gën na bari ci ay rakam mën nga ci xam nga eh, eh, imam Hassan Cissé bàyyi na fi institut islamique gën na yaatu ci ron rakam Cheikh Mahamadul Mahi imam Hassan imam Cheikh Tidiane Cissé xam nga ne ci ron sëriñ bi sos na moom it daarul fikri sayda roqeya daarul nahda wala markazul nahda mën nga lim lu bëree bëree bëri te loolu lépp taxawaayu sëriñ bi la moo leen di encouragé moo leen doon ñaawal ñaanal ndax yàlla def na ne Medina njaboot gi yëpp kuy xalifa rek ñëpp jox nañ la ñëpp jox nañ la seen baat ñëpp jox nañ la seen bopp bursu yi di dem di jàng bitim réew gën na yaatu ci biir Medina bàyyi waaye aspect bu xam ne yàlla koo ko jegleel te kenn laa ci ñi nga xamante ne ni euh, ñi ko mën a témoigner témoignage yoo xam ne ngay teg sa baaraam mooy am na coopération culturelle bu gën yaatu entre le Maroc et le Sénégal de manière générale waaye euh, particulièrement tamit entre le Maroc et la Fayda Tijaniya C'est bi bi diko jox ay bourse mu ko rakam Cheikh Khourachi euh, bi mu bourse bi partout dans le pays partout dans le Sénégal et j'en fais partie euh, C'est lool honneur la day chaque six mois mu tassaré ci Sénégal jëmm ji di wax ak yow profité woon naa ci yaakaar naa 4 wala 5 bourse yo xamne ma nga deug feele ci Ndoukoumane ci Kaffrine 6 mois yu nak rakam Cheikh Mahamadou Khoureychi wote ne kan ngeen tan ren euh, mu wara dem xale yeb di ci jangi te lolu ñun nima ko waxe senegal yëpp la lolu yalla moko jaglel waye ci taxawayam mënon na rek mu ñew mu ne Medina bay wala ñu sante ñess wala njabootu Maam hadji Abdoulaye dedet waye daf ko tassare li may wax ne ba Casamance te mën na la wax su su su su ma amoon ñetti waxtu ci yow naa la waxal mbooleem ku ci eh, ku ci jëfandikoo ndax jógee naa fi dagg naa billet dem ba Maroc ca ca ca ca ca fa ma xool gis ña fa nekk ay joolaa ngi ca ay séeréer ngi ci ay wolof ngi ci ñu sant ñes ak ñu santut ci kenn la doon dimbali te loolu noonu la ko defee ci Arabie Saoudite noonu la ko defee ci Égypte bu ñëwee ci alquran xam ngeen ne li ñuy tuddee jaizatu Cheikh Ibrahim lil Quran xifz al Quran al karim demet mooy prix bi nga xam ne maanaam yaatu na lool ci dundam nga xam ne dañ day génne xaalis bu bëri ñu génne kilifa yi mu dénk ko rakam Cheikh Mouhamad Abdul Malik doomi jullit yi man alxuraan te rafetal ko sëriñ bi bëgg leen encourager bëgg leen dëgëral ci alxuraan bëgg leen taral at mu ne ñu dajale leen ci koor gi ñu jongante ci alxuraan ku jiitu rek ñu jox la xaalis bu dul jeex jox la ay billet Makka te buñ koy def fii Medina bàyyi ba léegi internationalité gu Medina bàyyi def ciy feeñ ndax am na fi benn jamono benn naar Mauritanie moo gagné prix bi am na fi yaa un an wala deux ans doomu Oustaz Ibrahim Diop Barham Diop bu Serekunda bi wàcc liggéey bu yàggul di imam ratib bu Serekunda ca Gàmbi moo ñëw fi ci Medina Baye gagné prix bi sëriñ bi jox ko jox ko billet Makka jox ko ay millions mu ñibbi prix boobu yaatu na euh, naam. gis nañ ci biir Sénégal ay boroomi xaalis ay nangam nangam waaye nag xalifa bu xam ne da nga jóg yow takk sa ndigg ne man dinaa teral alxuraan dinaa def li ma mën ci alxuraan di génne ay millions di génne ay billets banque di ko jox képp ku xam ne yaa gagné rek moo xam danga nga xees wax naa ne naar gagné na ko fi yóbbu ko Mauritanie Gambien gagné ne ko fi <laughs> yóbbu gambi kon loolu aspect la tamit ci alxuraanul karim euh, li may tëjee rek mooy li nga xam ne moo taxoon a jóg euh, way juram mooy tawxiid tawxiidul umma mooy le adduna bi ndax baayam kat te ci lay bëgg ci lay bëgg a sax damay wax ne wax dëgg yàlla aaya bii alquran wax yonent bi yàlla di ko wax ne ko qul yaa ayyuhan yaa ayyuhan naasu inni rasulullahi ilaykum jamian yàlla dafa wax yonent bi ne ko waxal nit ñi ne man yonent bi ci yéen ñëpp lañ ma yónni maay maay maay maay maa maay yónnentam ñëpp xam nga yónnent yu jiitu yëpp Moussa dañ koy newoon ci aw nit banu Israël fe euh, Isa dañ koy newoon ci ab koñ Ibrahim dañ koy newoon Palestine Cham ak Saalih dañ koy newoon fële Yunus dafa nekkoon fële waaye yónnent bi nag moo ñëw ne inni rasulullahi ilaykum jamian loolu nag yónnent yi awliyaullahi yi dañuy feeñ ni ni ay yónnent dafa am ci wëli yàlla yi ñoo xam ne bi ñu ñëwee ci ab gox wala ci ab dëkk wala mission bu bu bu bu ñu très défini la la def mu jeex ci misal di nga gis wali yalla woo xam liko yalla di may moy jangali fiq jangal na téeméeri million yi junne doomi adama ci xam-xamu fiq waye lool la ko yalla baxé di nga gis ko xam liko yalla baxé moy di julli guddi guddi rek di nga gis ko xam liko yalla baxé moy ay milliards mu koy joxé rek waaye sëriñ bii moom boo xoolee inniyatu gogou mooy mooy globalité su ma ko mën a noonu wala internationalité muñ ko mën a wala mondialité wala mondialisme yéen ñi jégg tubaab nga xam ne yonent bi moom yàlla bi mu ñëwee daf na ko yow nag yow Mouhamed lépp yaa koy réglé yaay dem ci xeet yëpp yaay dem ci giir yëpp yaay réglé problème mu jamono yëpp Isa joxoon naa ko na réglé réglé lee Moussa lee laa problème politique ak Firawna Mouhamed nag bi mu ñëwee waliyu yàlla tamit noonu la ñu mel wa yonent bi alisalatu ah, Baye radiallahu anhu moom bi mu ñëwee moom dafa donn yonent bi ci inni rasulullahi ilaykum jamian maanaam man je suis pour tout le monde et pour tous les temps tamit bi mu Medina mu nekk fi di jàng liggéey fi ba 1937 mu bàyyeekoo fi dugg nag ci biir àdduna bi ndax inni rasulullahi goku yàlla waxoon yonent bi ilaykum jamian man yonent bi pour yéen ñëpp la bàyyi moom jox ko jox ko ndono googu jox ko héritage boobu moo mu jóg di doomi 37 ans doomi Cheikh Alhaji Abdoulaye di doomi mam Asu Jànk fii ñu xam ci Kossy na ci àdduna bi dajeeg ay buur dajeeg ay baadoola dajeeg kàngaami àdduna bi ci jamono di pencoog ñoom nag di wax muy wax xam nga euh, li gën a yéeme mooy ko ca jamono jooja nga xam ne xam-xam ni mu ni mu ni mu ñu bari daan nañu wax diw wax na wax na waaye moom daf daan bind bu dajewaan nag kàngaam yi moom lépp lu muy wax li xew ci jamono ji balaa day wax ba pare bind yónnee ñam war a parce que bind dafa dafa dangereux parce que dafay des maqaama ibrahim ca màkka ñu nga xam nañ mu jàmma luxal arabiya ca égypte ku ne xam na xew-xew ba fa xewoon keroog ba nga xamante ne Oustaz Barham Diop nee na délégation bu jógee woon Syrie ba mbooloo ma dafa am ku ñëw ci bàyyi ne ko yow buy mbugalam yàlla doon wàcc tey borom xam-xam yu bëri tey yàlla dana leen dana leen yóbbu waaye lu ko dul yow du mucc ak xanaa ko ànd ak yow rek ndax taxawaay bu mu amoon maanaam loolu nag yàlla joxoon ko moom Cheikh Ibrahim adduna yëpp nangul ko buur baadoola man dinay faral di wax ne dëkk bu ñëw Soudan fa laa jàngee Khartoum def naa fa cinq ans le président Jaafar Noumeiri nekk président en exercice sëriñ bi ci kaw la borom mbaar mi président nu Noumeiri di araab ci Soudan ci ron mbaar ci borom mbaar mii la sukk ci ronam mu jox ko tariqa tijaaniya loolu maanaam waxuma ko ndax kii mooy sama sëriñ sëriñ boobu nag xalifaam bii nii di moo Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani moom it wax dégg yàlla yàlla joxoon ko wiraasa moom it ci loolu ndax di nga dajeeg awso yu bëri wala Yoruba wala Igbo wala Jarma Niger Bénin Togo Nigéria buñ ne la safiru cheikh safiru cheikh rek te loolu it maa ngi ci lu leer témoin wu ko rek ndax dafa génn àdduna déedéet lu wér la ñoom bu ñu ne ambassadeur u cheikh à l'époque wala sax ba léegi nii liñ ci daan jublu rek mooy Mawlaaya Cheikh Ahmada Tidiane ndax momit it wuutu gum cër bu mu amoon ci cër boobu bàyyi mi amoon ci yonent bi bu particulier matale aduna mana a wax ak àdduna yëpp mën a jokkoo ak aduna bi jëriñ bi te wax naa ne yombut sëriñ yu fi. ngi fii buñ génnee Sénégal wala buñ génnee Mali ka leen di dañ kon nga def mu ne la fi waaye bàyyi la yàlla may ma bu ci jotaay wala xalifaam bu demee ci jotaay bu féké dafa wax olof dina soxlawoo ay interprètes yo xam ne mën nañoo man 30 wala 40 wala 50 wala du déggante ak ñom koku mom ñun ci ñi yalla nat ñuy wër ci aduna bi dem naa Asie dem naa Moyen-Orient partout dem naa États-Unis man na wax région yëpp dem naa ci man dem naa Europe waaye baye la yalla may je le dis très sincèrement et très objectivement nga dem fekk ñu lal malanum wazifa te boo bëgg a wax ak ñoom benn nga wax wolof wala chinois déggal nga wax anglais wala français wala chinois wala beneen làkk mais boo ne leen ma ne du ñu déggante yow benn baat la ñuy dégg ci wolof mooy bàyyi Niass bu fekkee bàyyi baatu wolof la kooku moom moom la ko yàlla may mooy wéral ne bàyyi moom inniyatu rasulullahi gim ne ilaykum jamian yàlla defaloon na ko xalifa bi nag yàlla defaloon na ko ci cër bu law boo demee Mauritanie boo demee Maroc boo demee Mauritanie moo tax tey ñu ngi xaar ay buur ñu ngi xaar ay président ñu ngi xaar ay ay ay ay ulama ay kàngaam ay ponkal nag waxuma Sénégal nag ni mu koy waxee ku ne nii rek mokkal xul wala xar ñu ne ponkal waaye am na ponkal yuy ñëw suba wala walaay ku leen fekk fa ñag nga xam ne ñii ki leen wulli ki leen wulli ponkal la xalifa bi nag yàlla defaloon na ko loolu mu sos an mu dëgëral ansaaru din bi mu tasaaree ci àdduna bi waaye ku yaatu woon la ci lay tëjee kaana latifan sëriñ sëriñ bu lewetoon la sëriñ bu lewetoon la ku mënoon a muñ lor la mun témoignage yi ma joxe yëpp ci lay tëjee ku mënoon a muñ la daawul jàmbat ku yaatu woon la ku yàlla teeloon na may wërsëg la te nangu woon koo jox baayam nangu woon koo jox jullit ñi ku ñeme woon coono la bi may tajee it mooy moom gis naa ne wax naa ko ne du ma jël engagement ne mosu ko wax wala mosu ko def waaye mosuma ko dégg mosuma ko wax te yàlla dimbale woon na ma ma jege ko su ma daganoon ma ne nekkoon naa ci cabinet ñeme naa koo wax ci rajo ci télévision te maa ngi nii Medina Baye fi laa koy waxee ñeme naa wax ne bokkoon naa ci cabinet am ndax daan na ma sant demal demal dugal dugal waaye ma ne ku xam ne boo laajee ñu jox la boo tàllaloon sa loxo sax te waxoo ñu teg ci boo jàmbatoo ñu dégg la boo tawatee ñu dégg la waaye mosta ñaan mosta tawat mosta wax nguur lu tax joxewu leen wala lu tax defu leen contrairement sax moom laa daan gis mu toog ne maa ngi sant gouvernement bi ñu ngi sant nguur gi ñu ngi sant diw ak diw yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla gërëm te fekk sax boobu sax moo dëgg yàlla yaatuwaayam ak yaram ak jikkoom moo tax loolu mosuma dégg mu ñaan nguur wala taalibe yi kaa leen def xanaa rek ñu war a def ci bàyyi te loolu sax ku ne moo daan njëkk def door a ne mbiram bàyyi maa ngi nii njabootu Baye Niass lu mos a ñëw it te laajut ko ku ne xam na ne du fanaan néegam ci njabootam njabootam la jëm te mu a njabootam rek mooy doomi bàyyi ak seeni doomi bàyyi ak taalibe yi fu ñu mënt nag joxe naa ci misaal bourse yi nga xam ne tey mu ngi koy tasaare fu nekk sëriñ bi liñ ci man a wax du xaaj du jeex fii ba suba man ku ma tàlloon microphone ba déwén ma di la wax benn par benn ci ay jëfam ñu am yaakaar waaye noonu rek wa man yushabih abaw fama zalama ku bàyyi jur euh, benn waaye daan wax ne mu ne doomi bàyyi nga rek mu ne jaratul naan ku baax nga mu ne jaratul ko jaratul ko ci fasaaxa di la bokk yal na ko yëkkati ay darajaam dëkkale kook wéy juram Mawlaaya Cheikh al Islam Hadj Ibrahima Niass li ñuy tëjee nag mooy ñu ngi ñaanal xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi mi nga xam ne it gajji moom loo fa gajjee rek mo moo fay jebbi ndax noonu lañ koy gaynde gaynde lay jur te bu jebbi sax day gën a yaatuwaat te moom ku ne xam na ko mooy farisul maydaan mufassirul quraanil karim cheikhul mahad wal muthaqaf Cheikh Mouhamadul Mahi yàlla na ko yàlla dëgëral yal na yàlla dëgëral ko ci xelam ak ci xolom ak ci jëmmam moom ak rakam yi nga xam ne it ñoom ñëpp ay yoonu liggéey bi rek ndax moom Cheikh Mahamadul Mahi day wax ne mu ne xilaafa ñun ñëpp la ñun ñëpp ay xolofaaw lañ Cheikh Mouhamadul Amin yal na yàlla dëgëral ko may ko wér Cheikh Mouhamadul Aqib yal na yàlla dëgëral ko may ko wér Cheikh Mouhamadul euh, Makki Cheikh Mouhamadul Makhtar ak seen i mbokk yu góor ak yu jigéen ak muqaddam yëpp fu ñu mënta nekk ak xolofaawu Cheikh yëpp fu ñu mënta nekk ñu ngi koy jaal adduna bi yëpp ñu ngi koy jaal dem wax naa ma ne Euh, toute l'humanité lañ koy jaalee duñ ko jaale jullit ñi danañ commencé nag ci ñooñ faydu bi teg ci ñooñ tariqa teg ci ñooñ l'islam généralement waaye fu nit mën a nekk rek moo xam gëm nga yàlla wala gëmoo yàlla de demoo sax exagéré naa ba ne ñu ngi koy jaal nit ñi ñu ngi koy jaal jinne yi ñu ngi koy jaal mala yi ñu ngi koy jaal njuuma yi ñu ngi koy jaal waa Mariix ak Zuhal ak orbite yëpp ñu ngi leen koy jaal di ko jaal le président de la république Macky Sall salaamaaleykum wa rahmatullahi wa